ci kàddu sëñ Moodu mi ngi lay ziyaara mi ngi lay ñaanal mi ngi kontaan ci yow bu baax waaye kóllëre gi nga xam ne seqoon nga faak booy jëw mu tedd ba muy Baye Cheikh Ahmad Tidiane Seck wax dëgg yàlla Baye Cheikh jógewu fi rek nga fàtte ko lii nga xam ne moom lañ tuddee Baye Cheikh Ahmad Tidiane yàlla dem mu tombeeg weeru koor weeru koor nga xam ni weeru barke la weeru yërmande weeru raxma la waaye weeru xekkun mina naar la li bi alayhi salaatu wasalaam awaluhu rahma wa awsatuhu magfira wa axiruhu xekkun mina kooku yàlla nañu yàlla defal ci koor bi lii mu nekk lu rëy loo xam ne njabootu Baay Seex Ahmed Tidiane dañ koo bàyyi xel ndax lii cër mënu koo weesu ndax teraanga mënut a weesu nit su baax faaw mu ci alquran su daraja faaw mu dellu ci alquran su bëggee jël ci àdduna bu sax na dellu ci alquran bu ko defee sax ma ta sax sax na sax man naasir lii nga def nii yàgg nga koo def te lépp loo xam ni mi koy def te doonul dëgg ci moom rek du yàgg te yàgg nga koo def ay kilifa di la fekk si biir te am na kilifa yoo xam ne ku leen di gis sa jotaay rek sa xel war naa daal kon ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax sëñ Modou nag ànd naag délégation bu mag a mag a mag ay Cheikh nag dafa doona nit koo xam ni ku ko xam rek ci alxuraan nga ko xamee ku ko xam ci nit ñu baax ñi nga ko xamee ndax lii dafa doon ni wax dëgg yàlla maamam ca la nekkoon ba bàyyee ko su nekk ba bu ko defee wax dëgg yàlla su demee ba jógee njabootam tamit bi na leen sas woo xam ni ba mu fi jógee ba tey daanaka duñ toog lu mat weer woo xam ni tuddee wuñ ko bis bu mel nii kon fa tabaarakallaa kontaan nañ bég nañ foo xam ni luñ tudd ci suñu làmmeñ rek wax dëgg yàlla am na lu des mbokk yi li wax ak tafsir damay gàttal rek ngir xataayu waxtu bi comme niñ ko waxee di nuyu mbooloo mi yëpp ci turu soxna astu kunta el xaaji mambu mohamed kunta waaye ci digalu kilifaam mohamed kunta mi nga xam ne mooy xalifa baayam waaye ci digalu seen kilifa ñoom El Hadji Cheikh Sidi Moukhtar Kounta soxna Asiya def na lu rëy ci diine soxna Mariama def la lu rëy ci diine ba yàlla defal ko li mu ko defal Khadija def lu rëy ci diine waaw Aïcha def lu rëy ci diine tey jii moom roolam la jamono ju rek am na kuy kuy suñu maam soxna jaara ñëpp xam nañu li mu li def ci diine maam ma koddu soxna ma koddu Diop so euh, euh, yaayu Cheikh Mouhamed Kounta ñëpp xam nañu li mu liggéey ci diine kon nag jox na Astu dafa taxaw ci tànki maamam jooju bëgg a def lépp loo xam ne maamam doon na ko def ndax jamono day dox ak jamono bu ne bu ñëwee façon ba muy doxee ñoom ak nañ doon liggéeyee moom it tey jii ak ni muy liggéeye ñu ñaanal ko yàlla yàggal taxawaayam dooleel ko jàpp ndalal ko ba li mu bëgg ci jullit ñi bëgg ko ci lislaam bi bëgg ko ci quran bi yàlla dimbale ko ci ndax sag la ci diine sag la ci lislaam waaye sag sag la ci ahlu kurti waaw sax sag la yit ci tariqatul xaadiriya moom soxna Astou Kounta ñun ñëpp dañ koy bégee ñun ñëpp dañ koy sagoo bés bii dafa nekk bés bu am solo ci président de la république Macky moo tax balaa muy dem umra dafa bàyyi ndigal pour ñu ñëw taxawal ko bés teewul tam ba tey ci suba ministre d'état Mahmoud Saleh mi ngi may woo di ma sonjaat ci bés bi te xam naa ne su ko ko waxee su ko defee kilifa gu mag bi moo ko ko wax mu koy sonjaat ma ne ko mi ngi may sonjit loo xamante ne man dama fekk ma gën koo bëgg ndaxte man lii daan naa faa taxaw boobu yàlla defagul sax ma am bii ndomba tax kon suñ ma yónnee dama ciy gën a sawar tey ku fi ne war naa gën a jàpp ci lii nga xamante ne moom mooy lii Ahmed Saloum di def moom mooy dekkal alxuraan dundal alxuraan ndax moom moo ñuy permettre faire face aux défis yi nga xam ne aujourd'hui muy Sénégal mooy muy àddina ñu ngi koy jànkonte loolu nag fekk na président la la république am ci yitte moo modernisation des daara muy enjeu bu mag ñu kontaan ci nga xamante ne tey kii nga xamante ne yor na responsable daara yi mu ngi fi toog kon loolu mooy wane ne que modernisation daara alxuraan lay dekki ñaanalaat bu baax ki nga xamante ne mooy Ahmed Saloum di ko wax ne ko président mi ngi koy bàyyi bët bu baax te mi ngi koy taxaw ci lépp loo xamante ne initiative pour yóbbu daara pour yóbbu alxuraan ca kanam di leen sant leen gërëm wasalaam dajewoon fii tey ci ñaareelu yoon ñaar fukki yoon ak juróom-ñeent ci concours sous régional sur le Coran concours sous régional su ñu waxee mooy concours boo xam ne dafa lëkkale Sénégal ak réew yu ko wër ñu woon ko nag ca 1993 ci ñaanu cheikh mahamadul mutara mbàkke ibnu xaadim rasul gis ngeen tey ji ni fi njabootam teewee bañ koy def ci at mu njëkk ba moo yabaloon taawam asafra doomam suñ xabban mbàkke jox ko fukki junni fukki junni yooyu tey jur ay million ndax ba ma koy tàmbali boobu ay téere laa daan maye ak ay big legi xaalis daa joxe ak ordinateur yu jot téeméeri junni ak enveloppe xaalis ak i ak hébergement loolu yëpp nag su amee mooy wane ni euh, la sëñ Mountakha Mbacké ñaanoon nangu na mooy loo ci chambre de commerce la ko daan teewee lépp daawul paase daawul paase fanweeri nit wala juróom fukki nga dem tey bañ naan junni doomu aadama koy teewee ndax su ma ko tàmbali woon te àndu ca du ma ci am lii su ma ko tàmbali woon te ñaanu ca du ma ci am lii su ma ko tàmbali woon te dafa ci weccit kon xaalis du ci am kon ñett yooyu mu ci def nag ñett yëpp feeñaan na ci maa ngi ko ci sant baax a baax a baax di sant njabootu njabootam baax gi nga xam ni tey jii kenn desul sëñ Moussa Mbacke sëñ Tàkko Mbacke sëñ Souaïbou Mbacke ñoom ñëpp teew fi ba ci Sëñ Muntaxa ma nekk Amérique sax dafa yëkkati àllam yónne ma di doom Sëñ Murtada xam ne kon dugal nañu seen loxo bu baax a baax Mawlana Cheikh Mahamadul Bachir mi nga xam ne moo yor baatu yoru murit jël addiyaam ak addiya Sëñ Muntaxa def ko muy benn addiya dugal ko fi soxna Baali Mbàkke mu Sëñ Muntaxa jiite fondation soxna Baali yewal fi Sëñ Moussa Sëñ Jili Moussa Abdou Aziz mu ñëw teew fi ci turam euh, waa Masaliku Jinaan teew fi waa Njaasaan teew fi Sëñ Sidi Maxtaar Kunta soxna Assu Kunta mi nga xam ne moom lañ defoon marraine bi famille Canaba sëñ Cheikh Tidiane sekk bi nga xam ne moom xalifa bi euh, te jóge fi bu yàggul doomam teewam teew fi yëkkati fi kàddu yi am solo kon ñun du ñu defee lu sant yàlla sant yàlla ci may gi mu may ñi fekke woon ko fekkewaat ko ren am ñaar ak juróom-ñeent sant yàlla ci yàlla jàmm ji def ci réew mi bañ fet bañ tal fee def lii sant yàlla ci yaakaar ji indiwaat ndax xam ngeen ñetti at ci ginnaaw kenn defatul woon conférence kenn defatul woon ndaje kon yaakaar gi judduwaat nañ ko sant suñu borom bi subhaanahu wa taala président boo xam ne at mu jot mu umra ji ñaari yoon at mu jot mu tabax benn at mu jot mu dugal ay arabisants ci université yi arabisants yi indépendance ba tey mosu ñoon ko université indépendance ba 2012 benn arabisant bu yor bac ñemee jëm ci benn université Sénégal amul ci nguuru Macky Sall ci la arabisants yi dugg ci université xam ne université saf xam ne nekk de mën nañu am néeg buñ dul fay mën nañoo jàng te duñu di jàngal léeg-léeg sax ñu boole ci di di fay ñu lay fay Lol Arab mosu ko am Arab li mu daan def booy jàng ba am bak topp àll bi jaar Mali jaar Algérie jaar Sahara bi dem Libye wala Égypte wala nga am bourse Égypte boo xam ni du passé ña nu tati ñeenti junni CFA te bu juni arab arabisant ñoo am bak ñi ko ci am du bon ñaar fuk Macky Sall nag léegi fexe ba at mu jot arab yi dugg ci université di jang buñ ci génnee dem école normale nekk professeur ñi nekk inspecteur loolu nag ndamam la ci la am dëkk yoo xam ne bu am nga dañuy jaaxle duñu xam fu ñu dugal tey ji dëkk boo dem ci Sénégal bu ñu amee nga duñ jaaxle duñ tumuraanke ndax Macky tabax na fay pale climatiser ko peinture ko meubler ko yenn yi sax da boole ko di ko entretien. réew mi def jàmm ñu bëgg a taar réew mi nañ xam ne Sénégal du réew muy tàkk Sénégal Sëñ Tuubaa dafay ñaan El Hadj Malick ñaan fi Cheikh Abdoulaye ñaan fi ahlu Kounda ñaan fi ahlu ba ñaan fi. réewum jàmm la réewum secret la réew la moo xam secret ku téye. nañ nañ gëm yàlla te xam ne kenn mënta lekk lu dul sa cër kenn mënta am lu dul sa cër kenn mënta am loo xam ne yàlla joxu ko